changement bii nii nii ñu gis xëy na waaw. ñàkk respect la bi leneen lu ñàkk respect xam nga lu tax parce que man ñi amatuñu temps wu yar xale yi xale yi amatuñu temps wu déglu. manque éducation de base booy seet ku ñàkk éducation de base Sénégal la fekk baax te ñu man bu ma sañoon ñii génn ñëpp dañ leen di dugal ci avion génne leen yóbbu leen feneen dinañ yar seen bopp te kenn du la wax jaaral fii. barki Serigne Babacar Sy Malick parce que gis nga yaay yi amatuñu temps man sama doom man bu ma ko juree barki Khalifa Malick bu Sénégal doon toj su ma ko waxee toogal fii bu génnulee bu génnee bu deewee du ma ko dëj man personnellement parce que nag dafa am loo xam ne yaay yi ak papa yi ñoo ko bàyyi ci mbedd bi mm. sama doom la man sama doom laay téye man e man bu ma du génnee sama doom doomam nekk ci biir ah merci xam lan la li fi ne nanu yar nit ñi éducation moo amatul Sénégal mm-hmm. buñ ne nit yi nañu génn wax man li tax ma ni nitu màkka laa xam naa ko parce que dëgg gi bëgg naa koo wax nag lii de bëgg naa ko mais su ma ko waxee dañ naan tap barkalaaji mari su ma ko waxee man ñu andil ma problème baa nu taal benn benn ndax mu nekkee dëgg te su ma waxee beneen wax bi damay dem seeti ñoom kumba <laughs> donc looloo tax ñëpp ni pat pat gi nag du ragal waaye dama ni yàq alalu jàmbur yi teguñu ko fenn. Mm. ci da ngay xeex li ngay xeex doo ci jot. mbaay balaa ngeen ci jot ñëpp faatu nañu gis nga dëgg dañ ko teg ci taabal ji Sénégal dafa am dëgg yoo xam dañ koo ragal danoo ragal nag ñu saaga ndox ay gor lañu. Ah. gor doo ko tiim teg tam di ko saaga ngeen kilifa yi dañuy saaga sàkkantuma ak ñun ay xale lañu mais nag li fi xew mooy bu dara xewee man kenn du génnee sama rakk barke laa ji man waxuma sama doom de sama rakk sax kenn du ko génnee mooy ki ne ci dëgg ki ne ci sama yoon nekku si li nga tuuma loolu mais nag kaay leen ngeen ngeen taal li ngeen di kan moo ko moom man naa ko moom mm. maa dem liggéey xaalis ñëw defar ko mm. tey bi ma soxlaa piisu orange bi ma demee orange parce que dama fekk ñu lakk ko ba mu jeex nekk moon Sénégal xaw ma sax li xew mm-hmm. ñu lakk ko ba mu jeex doon xoolaat nii may xool ñun fan la ñu nekk mm. xamuñu lii ñun Sénégal nañu dellu ci li ñu xamoon ñun tourisme dafa ab doon dox Sénégal léegi dootul dox dangay bloqué tourisme leneen la leen daroon mooy kenn du defati indi sa business. Ah, fii maanaam koy digal mm-hmm. étrange bu fi def sa business di ko tëgg. parce que nag Auchan yi ñuy lakk. yeneen ak yeneen yi ñuy lakk sénégalais ye fay liggéey man musuma ne Auchan ba gis fa tubaab. kon nag ñi na ci ginnaaw buñ ñu tooñ ñun xamuñu lii di xew ci réew mi Sénégal ay nit yu ragal ñoo fi nekkoon. ñeme nañu nag ci boo ñu tooñee waaye lii xew nii taal bi te taaloo leen benn business su lu dul lu lu lu nit defar xaalisam. Mm-hmm. mais gisoo leen fi benn tubaab bu ko defar. non Pendo da ngay wax wax ji loolu du taal c'est du banditisme. banditisme carrément. ko seen biir kër fàtte ngeen événement naar yi. yëg ngeen ñi lekkoon ci événement ko ba mu leer. at ba at ba ma juddoo parce que événement naar yi bi mu fi amee képp ku fa dugal potu meew yow tëggaat nga potu bi te yëgoo ko. yii ñuy toj di ko dugal ci biir kër yi di ko sàcc di ko lekk ay business su jàmbur nit defar yi fam ba pare di sénégalais comme yow nga taal yi nga toj ko mm-hmm. teguñu ko fenn waaye ba pare dama ne ñi ko def ak parti bu mu mën a doon ak koo mën a doon da ngeen ñoom ñëpp waroon a génn ma wax ko te dee da ngay dund ma moom da ngay dund na génn Sonko na génn mu baalu ak nit yi ñoom ñaar ñëpp dañ génn parce que nag ñoom ñoo waral lii yëpp am Macky na génn mu def mu def kii ni mu tudd live comme ñoom comme live rek dañuy def <laughs> Sonko bu paree mu def live mu ñu jaale nit yi non non ñu jaale nit yi ñu baalu àq nit yi parce que lépp politique moo ko andi damay falu kase te soo faloo yow ak say mbokk rangé ku falu ak say mbokk gis nga fii Sénégal pays Afrique ku fi dee ku dee non mais ni dee da dee kenn ku ci rax ni sa yaay si gën di daan ndeysaan nga accident day am nga gis benn mère dem ca kër ga jaale fa mais est gis nga kenn ku dem jaale ñooñu kon ku téewul sa doom bu deewee bul ko sax baasal man sama rakk bu ci woon kenn du baas suñu kër barki àllaa ji malik parce que nag damay wax ne man bu ma gisul doomu kilifa bu taxaw ci kanam sama du taxawaa ah. parce que man man sama philosophe nag laay wax waxeewu ma kenn ku ma saaga barki àllaa ji malik boo boo nekkee Sénégal doo fanaan sa kër mm-hmm. xaw ma nag nga nekk bitim réew te bu ma la gisee barki Mouhamad bu ma solee daal jàpp bi dalay sàpp boo may saaga dama lay jóg dëgg la xam nga lu tax loo xam nañ ko waxtaan dee ah. nañu génn ñu baal dañ koy wax te dund na kilifa yi na kilifa yi génn baalu ñëpp àq <laughs> parce que boo xam ne yaayam xam naa magam xam naa ko daf ci gaañu te xale bi amul exemple si bëri seen carte d'identité est-ce que xool majeure gaañu ñëpp seen yoon nekk ay xale lañu 16 ans la ñu am ay bal mais pour mais bal mais man du ma jël bal perdu yow du ma jël bal perdu man. <laughs> non non non man bu ñu xamee ne suba day am lu xew non tëju naa jënd naa lépp teg naa ku génn man a dama koy bi man ñam naa tuuti lakki di mosette parce que sànni leen ko sama booru kër. sama jëkkër ñanda xidi di wadd man may jooy. may leen lii ña ko jege. ak ñamu dal man xam naa ne sonn nañu kon nag ñun Sénégal ñu lii. jërëjëf yaaw dëkk bi dafa gent mm-hmm. xar amul foo doon fekk ay xar. wallaahi ay policiers nga fay fekk dañu waxante dëgg. doy na waar trop barki Mouhamad man heure bu ma may naa leen boisson ak barki Alifa ah, ah oui ah oui dama leen a yërëm parce que xam naa ne heure bi war na fekk seen seen kaw jabar yi. ci dëkk bi lu dul jàmm jàmm ko gën waaye ku yor sa musiba demal ak moom waaye. on en a marre nag dañu tiit. masa Pendo xol ngay waxee nii non non non non moom dëgg dëgg li ma fekk fii man bëgguma ko. la jërëjëf Pendo ay ca voilà donc euh, suñu euh, ay mag lañ suñu ay euh, tonton lañ suñu ay papa lañ policiers yi force de l'ordre yi et de sécurité ku ku romb rek waaw def sa oto wala ñu jënd boisson jënd ndox wallaahi wallaahi ñun ñëpp kay loolu la ñuy def ndeysaan yal na leen yàlla dooleel alors kii psychologue bi laay mujjee jox parce que dama bëgg